xam ne moo leen ko doon amalee rek ñu ngi taxaw ñoo xam ne dañ leen fekk ñu nekk si café salaamaaleykum taalibe yëpp prinsip yang buat wàccuwaay moo waral ngeen dajale ko ngir di def ngir jëm seen tubaar waaw comme bisu mel nii ci teew waaye bu bisu mel nii tamit amul bu bisu mel nii amul dañuy di ko set setal chaque ak di xool lépp loo xam ne duñ ko war a defar maanaam ci leeralum a ak yeneen ak yeneen ak ci yooyu nag tolloo la waaye heure bu ñu yëgee bis boo xam ne dañ koy bokk teew ñun murid ñoo nekk ci liggéey yëpp wane ca suñu bopp kenn ko ci sëñ bi bëgg. maanaam association bi comme gisee sëriñ bi ñu daal gisee laaj bi lan moo si seen wàccuwaay ak lan ak lan moo moo la ci fas yéene di ko def comme bis bi nii comme ni nga waxee ni noonu la ñu koy amalee kon bis bi nii maanaam kon waajal ngeen ko waajal baax a baax a baax. waaw waaw wàccaay waajal nañ ko wàccaay bu rafet bu baax ànd ko ñu ko war a àndal jëpp nag ginnaaw biñ ci amee ndigalu suñu kilifa. ñu waajal ko wàccaay bu am solo def ci li nga xam ne moom la ay murit bi def ci fu leen seen kilifa woo ñu nekk ci loolu ak membre yi ko àndal yëpp yëpp ci bi ñu ci loolu nekk la ñu nekk ànd ko liggéey ba ni bisub tey bi liggéey sëñ Muntaxa Mbàkke dañ koy ñaanal mu yàgg ci loolu te ànd ak ndax ak yàggam ci kaw suuf lu am njëriñ la te ñun nga xam ne ñooy koy ñaanal rek mu yàgg Sëñ Muntaxa nga xam ak li nga xam ne moom la war a wane mu ci rek ndax lu yaakaar nan ne murid yi ñu soo gis am na bu jiitu woon muy bisu xasaay tey bisu liyaam la kon nag Sëñ Muntaxa ko ñaanal rek ndax ñi ñi ko fi jiitu woon baayam yeeg magam yi junjoon nañ kon ñun ñu ñaanal rek mu yàgg fi la lan koy ñaanal Mbàkke Balla ndax bu yàggee rek sagum murid la sagum ñëpp la te li muy wane mu ngi ñëw bis bu set muy gën a wan murid yi lu leen jaaxal lu leen jommal loolu rek lañ koy ñaanal mu yàgg ko mbàkk mbàkk ànd ak moom di ko ñaanal suñu wasilaw bopp nag sëriñ moom moom sëriñ bi di ko ñaanal mu yàgg ci kaw suuf لا إله إلا